ñu leen woon ak Aliou Sow euh, premier point bi di journée sans presse un mot d'ordre largement suivi. oui parce que au lendemain justement de cette euh, euh, euh, événement si je puis dire. parce que quand même il est communément dit qu'un que la presse le quatrième pouvoir dans ce pays. Mmh. un événement mmh. malencontreux, pas forcément, de la presse sénégalaise

mais après avoir dit bravo pour la solidarité. après ñu xool lan mooy problème mu presse bi. parce que dañu ne. sa mbokk bu nekkee ci ay difficulté walla sa nit walla sax sa dëkkandoo. Mhm. dangay ngay jéem a lijjanti problème bi ba lépp dellu ci jàmm. Mhm. nga solidaire à ses côtés. Mhm. après boo paree nga jéem a seet nan ngay waxanteeg moom dëgg. Mhm. je pense que sagesse loolu la soxla. Mhm. yàlla def na ne effectivement hier à 98 pour cent ça a été respecté. Mhm. et donc j'avais envie de dire un grand bravo. après nag ngeen bàyyi xel ci réflexion les problèmes que vivent justement loolu nañ si ñëw semaine prochaine ah. problème yi nga xam ne moom la presse sénégalaise du dund. ak ce qu'on appelle les presses corrompues mhm. ak les presses qui sont impartiales mhm. parce que nag am na yana qui s'appelle dañuy wooye seen bopp mhm. partial ils ne sont pas forcément yana que on traite de corrompus et ils ne le sont pas forcément voyez ce qu'il faut faire ce qui est essentiel et ce qui serait important c'est de faire en sorte que kenn du mën a corrompre presse loolu ci am solo. ba kenn du mën a corrompre presse ba nga xam ne loolu dootul doonati waxtaan. l'éviter en tout cas autant que c'est possible en mettant dans des situations normales cette presse-là justement que la démocratie. suñ démocratie yi nga xam ne dafay nekk di monter en crescendo à tant besoin donc à partir de la semaine prochaine on parlera de cette presse là justement lan mooy difficulté yi mais j'avais juste envie de dire bravo en premier lieu pour cette solidarité bi nga xam ne man ñi man ñi man xawma leen sax ñooñu ñi ñi jiite yooyu ay CEDEPS que je les connais. Mm-hmm. je crois que le monsieur là une fois mos nañu daje fii. dañu ko ci plateau. mais mosuñu sax toog mais mm-hmm. par principe. je pense que c'était une bonne idée d'être solidaire et mhm. après de revoir mais heureusement mhm. heureusement d'un coup euh, malheureusement d'un côté d'un autre côté parce que heureusement parce que ils ont été solidaires et d'un côté on aurait euh, malheureusement on pu l'éviter il y a de scissions gis nañ xaajaloo euh, boo xamante ne am na ko ci ba ci ay propos yoo xamante ne jóge na fu nekk ku nekk ak ni nga ko jàngatee xalaat ko bien que yaa ngi nekk ci presse bi ñii dañ ciy ànd ñii duñ ci ànd lan moo ko waral wax nga ko sànq presse corrompue peut-être am na am na ñu dénoncé sax na ay à l'époque ay temps amoon na fi ñoo xamante ne dañ leen doon jox ay ay somme yoo xamante ne dañ leen koy jox ci ay organe de presse pare bàyyi ñeneen yi yooyu yëpp bokk na ci ay frustration moo moo moo créé division boobu am tamit ci biir presse bi. mooy problème mu Sénégal. Mm. xëy na fii ça concerne la presse. Mm. mais Fatou Diouf Faye c'est d'une évidence que ni. fii nii ay ku am ndey. ak ku amul ndey mais loolu du affaire du affaire fépp la am te loolu kii liggéey te ñu jiite ko ci réew mi mu doon un président de la république il doit faire en sorte que wax dëgg yàlla que yooyu yëpp bañati am qu'il y de la transparence dans la gestion des affaires publiques en général en général nag la presse ci biir la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dans la justice partout dëkk pour ñu mën ko développer il faut absolument qu'il y de la transparence dans la gestion des affaires publiques presse nag ci la bokk il faut moom transparence ça nous concerne aujourd'hui demain ça sera autre chose donc tant que mi nga am transparence nit ñi di xam li ñi ni ñuy def parce que kenn xamul kan lañ jox kenn xamul kan la ñu joxul des fois sax ñi ñu joxul. dañ leen di xam parce que ñoo dañuy dañuy wax lu bari. ñu waaw dañuy wax lu bari. am na ñoo xam ne dañuy wax lu bari parce que. dañ leen joxul am ñoo xam ne dañuy wax lu bari parce que dañuy bañ dañuy refuser accusation yi ñu teg ci seen doon. pour muy leer moo tax ñuy bëgg di wax. donc yooyu yëpp pour éviter tout ça. ça aurait été beaucoup plus simple. qu'il y encore une fois de la transparence dans la manière de faire. dans la manière de gérer ce pays-là dans tous les domaines d'intervention encore une fois comme euh, euh, naturellement le, le le le cas de la presse voilà maintenant léegi nag solution yeeg xalaat yi on pourrait en parler la semaine prochaine Fatou. Euh, euh, ça ça sera un sujet sur lequel effectivement. Mhm. on pourra euh, débattre. pour xam exactement. Mhm. lan mooy difficulté yi. Mhm. Euh, à la limite sama xel dafa nekk si. peut-être un, grand monsieur. peut-être qui qui pourrait éventuellement venir ici. et puis nous donner son avis par rapport à, à justement cette presse-là. Évidemment, ce sera avec l'autorisation de Mhm. de Cheikh d'accord incha allah euh, ce sera avec volontiers incha allah euh, un autre point euh, donc on va parler de ce périple périlleux. un périple périlleux. vous avez déjà utilisé le mot et vous avez parlé d'un périple d'un chemin périlleux. voilà. Uh-huh. Ah peut-être est-ce que bindu ma ko ci ginnaaw am na lu ma bindoon ci ginnaaw de. un périple périlleux. est dénué de sens pour le Premier ministre du Sénégal. Voilà. Un périple périlleux, périlleux est dénué de, dénué sens, pour le pour Premier, le premier ministre, ministre Sénégal. sénégalais. alors périlleux maanaam maanaam périlleux mooy man dafa coono la. Mhm. Euh, wax bari na. Mhm. tout le monde en parle on ne sait pas qui a tort mais en même temps on ne sait pas qui a raison. Mhm. Pourquoi? pourquoi. parce que. Fatou da ngay gis ni. dafa am loo xam ne daf fi tàmmul habituellement di am. dañu yeewu suba teel. ñu ne ñu le premier ministre de la République du Sénégal dafay dem ci. au Rwanda. Mmh. le premier le président la République enfin le président du Rwanda. Mmh. Paul Kagame. Mhm. dafa war a dugg ci quatrième mandat. vient, il vient d'être élu président de la République pour la quatrième fois mhm. à pratiquement 99 pour cent xale fi amoon na ko mhm. mais je l'aimais bien quand même parce que dëkk baa nga doon dox mhm. bien sûr xale fi waaw ko gën a xam sax quand on y est allé là à Tripoli il y a plus de vingt ans <laughs> litre essence euh, plein d' essence bi matul woon sax euh, est ce que matoon na ay ay ay ay dix mille francs CFA. bon plein litre d' essence. il y a vingt ans à li may wax bu dee amul laaj leen ko. ñi fa dëkk. ndax man quelque jours kese laa fa defoon. Mhm. plein plein litre de plein plein d' mhm. oto bu fees dell ak essence. matul woon dix mille francs CFA. Ah, niñ vie bu kii la ñu am de. il a vingt ans là-bas. laaj la ñi fa dëkk. Mhm. boobu Kadhafi mu ngi fa. Kadhafi mhm. ki gagné à quatre vingt dix huit pour cent quatre vingt dix neuf pour mhm. les élections. foofu sama ngañ nekkul ci démocratie. boo lekk gisee fruit. gis lekk waay yi gis xale yi ku ci am vingt cinq ans ñu jox la appartement ku ci takk jabar ñu jox ah loolu de bu amee ci dëkk moom. waaw vraiment. waaw nga dem sax eh, Qatar fii yow dem nga Qatar. Mm-hmm. Euh, seen seen seen kii seen seen bi seen arrêt bus yi comme yi ngeen di gis nii. Mm-hmm. arrêt bi boo ci duggee nii boo tëjoo dugg. est-ce xam nga li fa xew ci biir kilim si kilim ngay toog ba bis ba ñoo taxaw ci buntu arrêt bi. Mm-hmm. mbir mi ubbeeku nga dugg ndànk ci bis bi. bis bi tam yóbbu la clim ba ci kër. loolu dëgg la. loolu. foofu wax ma fa waxu démocratie yow ak waxu ay alternance dégg man nga fi fekk. <laughs> <laughs> dégg nga wax gi fruits yi nga naan li ngay lekk li ak li fa amoon ci ci ci lekk machin tu sentais que ni dund la dund li boobu lañ toj tas parce que soi-disant ay démocratie benn peuple bu ndaw benn ay ñoo xam ne dañ leen dañ leen kii euh, kii loolu euh, marginalisé waaw waaw waaw dan loo ko waxee marginalisé non waaw nu ñu dañ leen kii leen xaw leen monter pour ñu kii pour créer benn affaire ndax mën a am prétexte pour attaquer Kadhafi alors que depuis 69 ñëpp gis nañu li fi mu commencé ba fii loolu parenthèse la yi fi metti moo bari. Mhm. lépp ci mbirum démocratie bi la. pour wax la rek ne. xoolal pour wax la rek ne Fatou. Mhm. ni Kagame bi Ousmane Sonko demoon. seeti. Mhm. parce que dafa war a am quatrième mandat. quatrième mandat. normalement quand on contre. contre contre. kii. Euh, euh, euh, euh, pour la limitation des mandats. am na ñoo xam ne waroo associé ak ñoom. wala nga maandu si sax ci dërëm waaye boo demee ba di koy di di di di di applaudir dem déplacé wu ci réewam. exprès man je ne suis pas contre au contraire j'adore Paul Kagame parce que man man liggéey rek ma intéresse ay alternance yi ay c'est de la tricherie parce que genn wàll gi ñu nga doon jëm jibaa tey nii bi jibaa jibaa moo doon le directeur de la programmation au niveau du ministère des finances budget bi yëpp moo ko doon programme moo doon organiser loolu. ci régime bu Macky Sall. nekk ci ginnaaw Moustapha Ba kooku tey moo nekk moo nekk ministre des finances. ki doon programmé du budget bi. Ah, kooku tey moo nekk ministre des finances. elle est où la différence pour ceux qui man maa dinaa mer tuuti parce que damay xalaat sénégalais quoi est-ce que ñoom ñi ngi ubbi seen xel di xool. celui qui était le directeur de la programmation doon programmer budget Macky Sall pendant des années aux côtés de de. de de Moussa Ba kooku tey moo nekk ministre des finances kon kooku kooku kooku lan la mën a defee leneen. alors alors vous allez me dire kooku il a mal travaillé quand la programmation. dañoo basé wu ci compétence am pour bàyyi ko fa wala dafa am. non pour wax la ne non en fait ce que je veux dire. mooy c' est exactement la même chose ay alternance nii yii nii am na yoo xam ne ay détails la c' est pas important c' est pas ça qui fait la démocratie. dëgg ak transparence dëgg-dëgg ay élection nii ce n' est pas forcément nañ def a mesurer kii bi. Euh, euh, euh, population bi ni ñuy xalaatee ak yu demee noonu mais ce n'est pas le plus important moo tax ma doon joxe kaw ay ay ay ay Paul Kagame le problème c'est que am na ñoo xam ne Sénégal nee dañ waxoon ni dañ leen rayoon ni ay troisième mandat parce que ku def troisième mandat wala quatrième mandat rek da nga am problème alors que man dama doon prôné nii bu ko yoon waxee dañ ko respecté mais ce n'est pas le plus important ay troisième quatrième mandat waruñu di waxtaan ñaari at ci ay troisième wala quatrième mandat tey kooku la Ousmane Sonko demoon félicité tàcc ko c'est pour son quatrième mandat dégg ngeen moo la kooku loo la la la Bassirou Diomaye Faye yónni pour mu dem tàcc ko félicité ko marquer sa présence pour son quatrième mandat kooku après xam lu mu def kooku mi ngi fi tey mi ngi nii démb ñëw na Sénégal Paul Kagame Bassirou Diomaye Faye moom lay njëkk recevoir bi mu toogee ba tey kon Paul Kagame est Sénégal kooku dem leen ngeen wax ko pourquoi vous avez fait pourquoi vous êtes pas limité au deuxième mandat vous n'avez pas le droit vous n'êtes pas des démocrates dem leen ngeen wax ko bu ñëwee fi <laughs> loolu benn la. Hmm. moi franchement j'ai toujours pensé que ni Paul Kagame était bon là où il était am na ñu dee. am na ñu ko doon bëgg a rey Kadhafi am na ñu mu rey am na ñu ko doon bëgg a rey. même Sékou Touré xanaa sot sotoo bee bari woon rek. Hmm. ak ay traîtres yi nekkoon biir Guinée. nekk ay franco-sénégalais ñi nekk ay guinéens ñooñu ñoo def ba li mu bëggoon amul waaye ses idées étaient merveilleuses kon bari na fi ñoo xam ne reyante nañu pour Kagame li muy def nii je tout à fait d'accord avec lui réew mi nay dox rek dem leen ngeen xool Rwanda tey ji nii waaw léegi bu weesoo loolu Ousmane Sonko jël bi mu jógee foofu mm-hmm. ak avion présidentiel mm-hmm. après xam nga lan la def mm-hmm. Mm-hmm. waaw. après lan la def bi mu jógee foofu. pour moom mm-hmm. Ousmane Sonko. dafa dem seeti. Mm-hmm. Euh, président. Koita. waaw président Koita. fuñ toll nii réewam. mais amul kii amul euh, parti politique dañ leen interdire. on n'a pas le droit. Mm. de donner son avis actuellement au Mali. ah loolu c'est une forme de dictature alors. ah moom bi mu demee. wax na ci wala waxu ci wax na leen est-ce que yéen war ngeen bàyyi seen peuple bi te nga gaaw ngeen def ay élections réorganiser réew mi waaw wala déet. est am na droit wax ko fa tamit réewu jaamur la dem de. ah déet non comme ñoom ñoo bokk xalaat soi-disant. mais est-ce que waxuma seen politique étrangère yi nga xam ne dañuy sànq euh, dëkk yi la ñu àndal ànduñu ak dëkk yi France dafa baax bon euh, Russie dafa baax. et cetera et cetera alors ñoom ñëpp seen intérêt rek la ñuy topp. te pourtant. Euh, Mitterrand. bi mu ñëwee Afrique. dafa ne yéen dëkk yi di def coup d'état ay nëb sax mu il faut que ngeen instaurer la démocratie fii ci dëkk bi. sommet de la Baule. waaw wax na ko. président kii euh, euh, euh, du fii la ki Erdogan ñëw ci xaw Macky Sall ne ko ah yow da ngaa ay ministre hmm. ñii ñëpp say doom la ñii ñëpp ministre hmm. extraordinaire voilà ñëw na wax xalaatal hmm. la Russie qui va être là pratiquement dans les prochaines années la Russie je parle de la Turquie qui va faire partie dans les prochaines années des dix pays les plus puissants économiquement dans le monde. Russie euh, Turquie. Turquie ah, c'est un pays leen wax loolu. moom Erdogan Erdogan moom. pays développé déjà. Mm-hmm. tey jii nii y' plus de cinquante mille personnes yoo xam ne. Mm-hmm. dañu leen tëj ci kaso yi parce que dañu doon tenté coup d' état sans compter ñi ñi rey. Mm-hmm. coup d' bi ñu ko doon jéem a def Erdogan il y a quelques années ci ginnaaw yàggul. avant ñu koy falal. dëkk dafa war a am ordre pour mu jaar yoon waaye ñiy joxe ordre dañu war a transparent ba ba lépp leer ci bëtu Sénégal ba kenn du am looy wax looy loo loo looy teg nit ki mooy ki la jiite. Mhm. transparence lépp jaar yoon ngay respecter ordre yi respecter les les les institutions ordre républicain bi ñëpp respecté ku ko xool da ngay ragal. Mhm. loolooy dëgg faatu waaye bi mu demee Mali waxu loolu yëpp non seulement ñun xamuñu lan la fa wax kon finalement demu Ousmane Sonko ca Mali ban njëriñ la am population malienne est-ce que gis ngeen ñu génn. yiir ko gis ngeen population Mali génn accueillir Ousmane Sonko tàccu comme moom daf leen doon défendre bi mu demee lan la wax Assimi Koïta par rapport ak armée bi nga xam ne moom dafa leen waxoon dina bu ñu ñëwee ci nguur gi dinaa leen promettre ni ñun bu ñu ñëwee ci nguur gi armée Sénégal dina ñëw jàppale leen pour ñu xeex terroriste yi est-ce que wax na ko fa parce que war na ko wax loolu normalement bu dee gis loolu la war a njëkk wax parce que loolu ci euh, euh, Mali li ñu gën a soxla mooy sécurité waa léegi bi ñu demee lu tax waxu leen ko wax na wax na ko dina dina ñëw wala déet loolu nañu ko wax ñu dégg loolu daf ci waroon def moom euh, euh, allocution dafa waroon dafa waroon intervention wax lan la jëlee Mali bi mu ñëwee wala bu demee sax bu waxee ci Mali ci kii malien yi euh, ci ci ci presse malienne bi mu expliquer leen lan moo ko fa indi ndax ñun ñu mën ci jot xam lan moo taxoon mu dem foofu. Mm-hmm. moo tax ma ne moo tax ma joxe titre bi. D'accord, un périple périlleux. mais dénué de sens. Dénué de sens. Puisque finalement kenn xamul lan la fa doon def à part dépenser de l'argent et utiliser l'avion présidentiel bi nga xam ne c'est rare ngay gis ñuy utiliser avion un premier ministre parce que solennité bi am ci avion présidentiel kenn waru koo laal sauf situation exceptionnelle. le pays qui va jouer au foot ñu jël équipe nationale yóbbu ko jugal ko ci avion bi présent bi joxe ko. mais un premier ministre pour dem xool Kagame rek mënoon la jël avion spécial même bu fekkee ne sax classe business lay jël ak cinq de ses collaborateurs donc son aide de camp dem aller-retour vite fait dugg ci benn hôtel dellu si waat. est-ce que du son ay Diomaye Diomaye ay Sonko bi la. mais Sonko ay Diomaye Diomaye Sonko waaye Sonko ay Diomaye moomuñu alalu réew mi bi nga xam ne sa aller retour bi nii sa ça coûté ak jaar Mali beeg yooyu au moins deux cent millions. mais 200 millions yow soxla woo ko ay marchands ambulants yi soxla wuñ ko. Mm-hmm. amul ñeneen ñoo xam ne soxla nañ ko en urgence nii. Mm-hmm. akulaay taalaa rek te yàlla tax. soxla naa ko urgence moom bu demoon léegi moom dina dépenser 20 20 millions wala 50 millions sax aller retour. Mm-hmm. bien compris ak seen frais d'hôtel yi. bu fa jógee dem Mali demaat feneen sax fu ko neex waaye avion présidentiel frais de parking yi kérosène bi temps bi. Euh, euh, kii bi nekk ak yow lu mat 40 personnes nekk ak yow ci biir nga war leen dundal jox leen ñu lekk jox leen ñu naan pendant une ak ak avion bi il faut nga euh, kii bi il faut nga nga nga koy toppatoo. di koy vérifier fu mu taxaw il faut nga xoolaat lépp. yooyu san coût. Mhm. donc finalement ban njëriñ la am. yooyu mooy problème mu réew yi. Mhm. boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy. Mhm. mooy lan Sonko. ma jàmbal la grande chamaille. Sonko Madiambal la grande chamaille. Pourquoi tu rigoles, toi Chamaille Le mot chamaille Ouais, c'est une chamaille, c'est La chamaille. Ouais. Une grosse chamaille. C'est ce euh, boo xam ne man damay ñaan chamaille boobu continuer ah. yàlla xam na ni awma soxote ci sama xol mm. waaye damay ñaan chamaille boobu continuer parce que gis nga ci chamaille boobu lay lu bari di leer lay lu bari di feeñ. parce que Madiambal commencé na di am yu mu wax yoo xam ne man dama bëggoon ñu leeral ko démb tey doog a ñëw te bëggoon ñu leeral ko yooyu subir naa ci lu bari te dëgg rek ma taxoon a jóg léegi nag na samaay am comme ça mu leer parce que yàlla nag bu naree leeral ay mbir dafa am fu mu koy jaaree de. Hmm. na mbir yi continuer na cooki bi continuer ndax ah. lépp leer ndax Madiambal wax Sonko wax. mbaa du gën a graaw. ci tant pis na defar Sénégal. Ah. casser des œufs pour faire des omelettes. waaw pour defar nen. mais cooki boobu dina tax moom dina mën a gouverner. xamul nga lu tax non xam nga xam nga lu tax parce que dafa am yu fi xewoon ba nguur gu bees ñëw dafa am yu fi xewoon. par exemple man j'ai toujours envie et je l'ai toujours di complot boobu ñu doon wax tey jii nii Ousmane Sonko à la possibilité leeral ndax dañ ko doon complot wala déet. waaw mais na feeñal lépp. waaw mais Aliou teg lépp nga xoolal il a le pouvoir il il faut juste qu'il léegi mu teel a dossier yi teg ko wane ko. waaw Aliou Sow leen gis nga nag régime Macky Sall lii lañ ma doon teg nag. lii mooy complot bi nag mais Aliou Sow waaw léegi Aliou Sow dégg nga Aliou Sow. yomb na de Aliou Sow est-ce que chamaille boobu ngay wax yow. oui est-ce que chamaille boobu tey ñun ñii moment bi ñu toll nii est-ce que chamaille boobu arrangé na population. soxla nañ ka waaw population sénégalaise bi li mu tal fu mu nekk nii lekk. dëgg la li mu tal naan. li mu tal am fu mu dëkk. li mu tal moom mooy sécurité loolu la tal. boulanger yaa ngi nii di wax naan mburu bi ñoom duñ ko wàññeeti. non doo dégg ma non non ah. doo dégg ma dama ne est-ce que chamaay boobu ngay wax yow ñun ñii. est-ce que ñun ñii ñun ñun ñun ñun ñun la population. waaw est-ce que ñun tal nañ ko. xamul nga lu tax. taluñu ko de non Cheikh taluñu ko. mais man dama dañoo bëgg a lekk. waaw d'accord naa dañoo bëgg a naan d'accord naa bëgg a xoolal xoolal gis nga gis nga fu dëgg amul yow sa lekk bi ngay laaj ni du ma sa mët yow xoolal tànk dëgg jiituwul yow doo ma sa lekk ba suur tànk ay mbir leerul ci ay jotaay ci ay jotaayu ay nit toogaay boobu du ma sa leer da ngeen koy reporter rek parce que lépp c'est enfermé dans le mensonge et dans l'hypocrisie waaw doo liggéey non dama ne pour nga liggéey pour nga liggéey. il faut que il faut dëgg il faut mu jiitu sa liggéey pour mu baax pour mu efficace il faut nga dëgg. ci liggéey non mën nga liggéey te mën liggéey ci dëgg. déedéet. mën nga liggéey ci dëgg. déedéet liggéey ci fen. mënoo liggéey liggéey ci hypocrisie. laa lay wax dama ne mënoo liggéey ci ci ci liggéey c'est vrai je d'accord parce que boo ko defee doo dem. dégg te boo demul du dox te bu doxul doo lekk. waaw voilà mais dama ne nga liggéey ci dëgg. Ah. nga jël liggéey bi yoo nga ne eh eh mu ngi nii leen on travaille samaay bi yeeg ay jàppal fii yeeg ay nangam fii yeeg non xam lu ñuy def mooy que nañu liggéey sénégalais yi lekk nañu liggéey euh, kii euh, sénégalais yi naan. nañu liggéey ñoom ñu am sécurité ak fu ñuy tëdd. mais nan ngay liggéeyee mais loolu lañ tal de. xam nga li yow de man dégg naa ko mais dama ne nan ngay liggéeyee yow mënoo liggéey ci loo xam ne jiituwul dëkk jiituwu ko. matériel li ngay liggéeyee instrument yi nga téye à ta disposition pour liggéey mm-hmm. instrument yooyu bi nga koy téye est-ce que dëgg am na est-ce que dëgg jiitu na ko parce que bu ko dëgg jiitoo dañ lay sa liggéey day yomb bu ko dëgg jiituwul dafa am yuy feeñ te daf lay décrédibiliser te bu la décrédibiliser sa liggéey du mën a yemb c'est impossible xaw ma ndax na dégg leen li may wax man nag dama bëgg des fois ñuy vaar nuyu baar kan. si xam lu tax. parce que hmm. li may wax nii dafa am yu muy ay conséquences yu muy am. ah d'accord pour yu ngeen ok. parce que xam lu tax parce que dama ne rek bu jiituwul liggéey. Mhm. liggéey boobu du dox. quand on parle de chamaille. on peut faire allusion la chamaille mooy xam nga dama bëgg. tension day am forcément non xam nga. Euh, tension day am forcément ah, Aliou n'est-ce pas. mais bien sûr mais stabilité la ñu la ñu bëgg aussi. pour pour mën a euh, régler yenn problème euh, c'est vrai que deuxième guerre mondiale. Hmm. bi mu amee ba pare. Mhm. si le. la SDN def euh, le plan Marshall il fallait jaxase Allemagne Hitler ñu définitivement euh, éradiquer ko mais Allemagne dañ ko raser completement ñoom attan nañ ko de. non dama lay wax non. waaw tolluwul foofu laa wax. waaw tolluwul foofu mais dama ne. am na yoo xam mais lépp lañ tabaxaat avec le plan Marshall. waaye dama ne pour ñu tabax lii laa am na yoo xam ne dafa am yoo xam ne ja dafa dañ ko tabax mais kiiwul ci dëgg weñ ñi weñ ñi weñ weñ ñi jiital pour pour tabax. weñu weñu feer boobu du du fer bu baax bi fer bi mëtul fer bi dafa sew dëgërul amul amul amul fondement bu dëgër parce que réew yi yëpp suñu suñu réew yi ci ci ci kàcc lañ ko téye depuis vingt ans trente ans en général laa wax parce que bu leeroon set comme de pays comme la Corée du Sud kon mm-hmm. faatu kenn waxatu ko d'accord mm-hmm. Corée du Sud dëgg moo fa laal moo leen laal d'accord en tout cas je pense que Rwanda uh-huh. Paul Kagame est là juste pour terminer. d'accord Rwanda. Uh-huh. Paul Kagame. lu nekk lañ koy yàq mais Paul Kagame doo leen ko mbës wax ci ay enrichissement ci ay manque de transparence dans ce qu'il fait dans son pays. Mm-hmm. amul. waxuma ñu waxuma opposants yi critiquer de nekk ay bitim réew sànni ay baat ak demee noonu comme ni ñu doon def sécurité ba ba finalement Guinée mu jëwul atteindre sa mission. Mm. xam naa expérience yooyu la ñu président yi am léegi. Ah, ah, yu bees yi ah. moo tax ñu tënk seen bopp sécuriser seen bopp. pour li leen daloon sécurité bañ la dal. parce que sécurité a toujours été de bonne foi. mais personne ne l'a parce que euh, c'est comme les esclaves d'ailleurs ah leen xaar foofu ci kii bi ñu ñu indi leen. dëgg la ñoo ko doon def. pour vous dire que ni on doit arrêter de s'enfermer